Fama maa lay fay waaw di nuyu Sénégal yëpp waaw ak sama fan si waaw jàppal baay toute la famille aussi maa ngi leen béggee ñëpp ah King Kheuch la <laughs> waaw attesté ma ak waa Akhlou Brick en fait euh, avant tout ma leen di nuyu de passage quoi waa Akhlou Brick euh, ak Brick yëpp bon ma li ko indi bon c'est une un peu une longue histoire euh, avant dañ defoon featuring defoon nañ featuring man ara ak léegi du coup après bi mu ñëwaatee parce que man dama doon voyager rek quoi damay doon ko def après mo voyager léegi bi mu ñëwaatee ñu bëgg a yeesalaat affaire yi mais fekk xam ma rek déggoo gaay mais ñu ne ma ñu def ko beneen level après si laa génne ara ak featuring bi mu waaw loolu moo ko indi quoi. ah comme son nom l'entend leen di rek. attesté ma quoi en fait ça part du game soo déggee attesté ma da ngay xalaat si genre policier yeeg affaire yooy mais au fond genre métamorphe métaphore la ko quoi métaphore di coup attesté ma si game bi la bii pas si game bi du genre yaa ngi dégg naan am na son buy brûlé game bi ñëw leen attesté ma maanaam benn son boo xam ne day day def boo xam ne bon di genre ñëpp ñëppay d'accord quoi ñëppay attesté quoi di ku c'est loo xam ne bomb la boo xam ne mën na ñëw rek brûlé game bi te man lool moo ma tax a jóg man bëgguma di def son yoo xam ne mooy loolu dama bëgg son bu ma def rek day waaw day def feu quoi comme yaa gën a xam it yeah waaw en fait euh, daanaka Calze Calze bu RFM moo doxoon kii boobu link boobu man la woon ak Ara ak Bril Bril Fight ñoo kii mu ngi sama kii sax soo duggee sama compte YouTube di nga ko gis mais son boobu King la tuddoon quoi léegi après biñ bëggee yeesalaat boobu ba tourné ko xam nga rek ay bagage yu <laughs> yaa ma gën sew si suuf rek moo tax kiwul parce que son boobu dafa defoon benn genre kii quoi am euh, benn genre defoon na genre critique bu fort Sénégal parce que gars yi dañu jàppoon ne nag euh, Bril ak Ara xam nga dañuy dañu mel ni luy clashante si son bi après Ara bi ko dégloo ak bril biñ ko gisee kii commentaire yi si internet bi dañ ja xam nga rek fan si ñoom des fois mooy lool quoi mais ñoom ñaar ñun ñett ñoo dóor son bi ñoom ñaar jubluwuñ si lool quoi vraiment mais xap après fan si ñooy indi rumeur yi naan waaw xam nga ara mu ngi classe bril si biir sound bi bril tamit mu ngi koy classe si biir sound bi xam nga après xam nga rek gars yi ñoom biñ dégg basé woo foofu moom ara ne xam nga rek ñoom moog bril yëpp am nu benn problème vraiment mais après ñu ne moo gën a nice arène mais coolul après si leen waxtaanee waaw programme attestement bi quoi lool moo ko gën a indi quoi. waa ki nga xës déjà xës moom sama neem la xës cheikh xës quoi léegi king bi bon comme king rek comme ni nga koy déggee <laughs> waaw yaa xam. <laughs> waa bon avant tout obi woon rek comme gars yi des fois nga nekk jeune di. breve musique wala nga am sa benn artiste boo xam ne moom ngay sa idole la moom ngay suivre xam nga mais après nag bon dama si commencé foncé wu nag jëlee ko au sérieux mais y a bon quatre ans de cela quoi wala six ans mais avant maa si woon di coup damay def son dem voyager ñëwaat wala du ma si sérieux mais instant bi laa si commencé sérieux nag jël ko au sérieux quoi waaw soo gisee sax samuy vidéo waaw noonu la quoi. ah bon en fait man maa ngi si mais si hip hop bi nag laa gën a nekk mais damay def techno may def reggae damay def sax mbalax des fois parce que am na ay featuring ak mbalax man yu ma àndal ay featuring si tele beeg yu bëri ay par yu bëri ak samay son tamit am na ay yoo xam ne tamit techno la reggae la rab la mbalax la tamit quoi mais pas mbalax comme nii en fait rab mbalax quoi. <laughs> Africa bi bon. Africa bi tamit tëggoon naa ko avant mais daa am keneen ku ma ko futuré nga mais instant bi dama ko dama ko moderniser waat ànd benn gel bon bu ñuy wax Sandra bon ma koy saluer de passage gel bu mën a woy quoi vraiment macha allah léegi après dañ ñu collaborer ñu répété affaire bi dugal ko studio xam nga si quoi dugal ko studio mais Africa bi comme xam nga rek image Africa bi ak image Sénégal lañ si jublu quoi pour génn image Sénégal titre la boo xam ne man moom bokk na si son yi ma gën a neex si sama son yi ma réaliser surtout ak clip bi tout quoi. waaw waaw lool waaw lool bon question la quoi parce que au début moom. xam nga des fois Europe moom su fekkee da ngay dem toog moom bëgg a def fii euh, carrière day metti quoi du coup moo waral sax man su ma demee ay un mois damay ñëwaat am yu may lijjanti xam nga rek comme que am naa fa ay business quoi tef instant bi maa ngi xam naa moom dinañ dem ba si kanam moom pour ma dem moom mooy lool sax dangay tas mais su ma gënee basé wu fii par contre promo bi bon ñu ngi koy gérer dañ koy gérer xam nga léegi moom ak internet bi mën nga nekk sax hors de Sénégal di def sa promo mais des fois présence yi da siy baax quoi comme nii nii émission yi télé yi rajo yi affaire yooyu noonu looloo tax muy du may du may faral di yàgg quoi su ma toogee ba toog un mois lay doon. Ah waaw man dama débuté nag ak sama propre label. waaw en fait muy nice dream man ak sama gars yi sama staff. waaw mais instant bi tamit bon comme attesté ma bi label Musée Records bu Akhlou Brick ñoom ñoo ko job ñoo ko produire quoi ñoo ko job waaw bit bi moom waa Ziz moo ko tëgg mais du coup sama label dama ko yor mais instant bi damay joob ak yeneen label waaw samay projet moom waaw comme tous les artistes bon ñëw imposer sama savoir si game bi ak sama flow li may pousse yi parce que instant bi moom man waaw ñëwuma pour caaxaan quoi comme li may wax rek dama ñëw pour pour foncer quoi brûler game bi. <laughs> waaw waaw lool lool sama fans yi nag lay dépendre quoi man dama bëgg lu may lu may def rek des fois man dama bëgg samay fans ñëw réclamer ma ko quoi mais instant bi maa ngi dox na si ay featuring waaw maa ngi dox si ay featuring mais dina sama carrière solo moom instant bi maa ngi job samay son bopp yu bëri mais dama koy dajale quoi. damay job deñ job deñ nga xam ne so demee buy génne album rek après day yomb da ngay génne rek mais mën mën naa am sax pas longtemps quoi ça dépend rek man damay xool game bi fu mu toll ak sama niveau fan si fu mu toll rek ak lu soxla ak période bi ñu ko war a defee rek ñu appliquer ko quoi. en fait sama dernière moom mooy maa ngi saluer toute ma famille xam nga des fois mën nga saluer sax juum quoi toute ma famille quoi ak tous mes amis <laughs> dama globaliser ak Sénégal ak yow di la remercier si émission bi euh, vraiment. Euh, bon c'est à peu près ça quoi di wax ne moom maa ay projet yu ñëwaat si def bomb claque incha allah. <laughs> King Khush in the game where my niggas up Discord wala boog kañ pull it up li ngay dégg ni ci kono bi la xewe ni dajale niga yi rap bi mooñ ñu boole ni foog ñu job am lu bëri gëm sa bopp like TFM IGFM lan kay wax wala boog fama maa lay bégee <laughs>